xibaar yi alliance pour la paix et la solidarité nag mission 313 moo amal ndaje nag ak taskatu xibaar yi nag mu càmbar fa digganteem ak Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade kon nag fas yéene it taxaw nag ne day na liggéeyal ak kii di njiital Macky Sall kon ci euh, mandat bi ñu ko daal di nag fal ñeenteelu njiitu réewum Sénégal ñu teelu kii di Cheikh Bokar Diagne bu nag euh, alliance pour la paix et la solidarité ci micro Asmalik Diop. waaye man de defe naa ne ku àndoon ak Ablaye Wade dégg gis ni Ablaye Wade doxale ak Macky Sall te Ablaye Wade ñoroon la la mu doon def ñoroon la doo fi bàyyi ak Macky Sall di topp keneen ndax bu la paase nag di woteeg nit balay résultat yi génn nga téléphoné ko ni ko gañe nga te muy sa doom mieux nga jox ko lenga yi avant même la date libéré ko waxtaan ak moom ni ko tàllalal say loxo mu tàllal ay loxoom te nun jullit la ñaan la nu xam tàllalal loxo bu tàllal ay loxoom mu ñaanal ko kenn ku nekk dégg na ci tele bi ab Abdoulaye Wade ni ko yàlla na la yàlla jàppale waaw léegi nag kon ku àndoon ak Abdoulaye Wade bëgg a def leneen man danaa la topp man du ma ko def <laughs> damay topp ci gannaaw Macky Sall mii di ko jàppale dama doon jàppale Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf ba lu yàlla def lu yàlla def mu sot mu neex ma lu yàlla def Macky Sall mu neexul yàlla def moo la ma def du ma lu yàlla def dama naqari mu ci loolu laa bëggoon muy lu may leeral ndax danoo àndoon ci ngor man ak yéen Macky itam ñaari yoon lañu mos a toog maa moom ci àddina benn bu ci nekk jéppiwu ma ko lii may wax dana ko dégg bi benn bi moo ma oo ca ci palais boobu premier ministre la wax ak man waxi gor ñu ànd ci ngor bi ci des man bi maa ko soxla dem fekk ko ci këram wax ak moom waxi gor mu tontu ma waxi gor loolu laa seq ak Macky Sall